Touba Info TV Dakar Live ak Fekke TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm toujours ci édition spéciale yi nga xamante ni dañ koy amal dañuy topp actualité actualité lamb nag moo gën a fës nag ci semaine bi nga xamante ni moom la ñu génn mooy mbirum Ada Fass borom ñaari jabar yi moo baat record conjugal yi macha allah euh, ñu ñëw nag fekk fii ay nitam euh, koo xamante ni bokk na ci ñu ko gën a jege c'est un son c'est si je me trompe pas moo yor ay page moo yor ay compte am nekk euh, son meilleur ami moom la ñu fas yéene waxtaanal waaye bala ñoo sor dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen présenté wu ñu soog di dugg ci waxtaan bi le grand maa ngi lay char maa lay fay maa leen jox seen wàccu waaye yéen ñëpp naka yi tey naa maa jàmm bu baax tur bi naka la laay bu laay bu aarafaas kon yow bàyyeegoo bokkagoo ci ñu bàyyi ndax euh, dégg naa booy bari booy bari nañ ko mais laay moom bàyyiwul ultra la xam naa mais laay euh, coow sa diggante ak aarafaas d'abord la bëgg ñu ñëw euh, sa diggante ak aarafaas kañ la tàmbali ak lan ngay gérer ci moom Ada Fass Fass bi moo ñu boole rek doomu Fass la moo tax ma topp ko loolu kese la ah. Mhm. mu nekk doomu Fass la quoi parce que ñun Fass moo ñu ñor mhm. ñun ay doomu Fass mhm. moo yor suñu drapeau moo yor drapeau moo tax ma topp ko loolu kese la waaw. Euh, dégg naa yor ay compte TikTok euh, affaire yooyu. waaw maa koy seere maa yor lépp. kon yaay jot message yaay yaay jotee est-ce que yow booy bi xamante wul ak moom foofu ci TikTok bi. kan aada ah. non xamante wuñ ci TikTok bi rek aada Fass ko a ngi nii sama ko ñoo ngi nii. nga ay xamante TikTok. yow nga li ngay wax est-ce que du booy bu bees bi euh, ñaareel xaritu jëkkëram xamante wul ak moom ci TikTok. non Ada xam naa affaire de muy dem la quoi yu mu doon dem ay. milieu yu muy dem la xam naa foofu la ñu xamante man nag xaw ma nag fu ñu xamante ah. Uh-huh. d'accord février ñu ne ñu Ada Fass tax na jabar ginnaaw bi ñu ko sarko daane ñu ñëw ba mois d'avril euh, maanaam fin mars bi ñu ne tax na ñaareel yow nouvelle bi déjà Ada yëgal lool na la avant wala danga nga jékki-jékki rek yëgal na ko comme saa yow am nga jabar wala amagoo jabar. man waaw. lu tax nga may laaj loolu man maa war a laajte de. yow su la neexee nga takk kat jabar. Hmm. fii am ñëpp képp ku mu neex. ñun ay góor lañu wax ma la bu mu takk jabar de bi de wala koor gee la jàpp. dama ne bi muy takku soxna yow woo na la yëgal la wala da nga koo déggandoo ak gaay wax na ma ko dégg naa ko. kañ la la ko wax. avant wi takk nga d'accord si. Ah, na su la neexee nga takk jabar parce loolu sa vie la quoi. Hmm. yaa ngi comprendre. waaw mais est loolu ànd na ak carrière am surtout xale la ba pare am lu mu bëgg ci làmb. waaw loolu moom man moom loolu moom dëgg na yàlla moom comme teg ci carrière la nekk. Mhm. munoon na bàyyi ba ci kanam kanam. door takk jabar. Mhm. ba ci kanam nag. billaahi jarul wuy profitoo laay fam quoi mhm. jaru ko wuy profitoo laay fam. est-ce que nga ko loolu yow. non ki nag su jëlee décision bi nii ne lii laa bëgg comprendre nga soo waxee moom déggul. da bàyyi moom lu mu bëgg quoi. kon da nga ko wax déggu la quoi. waaw. d'accord euh, mais ñu euh, toog euh, samedi bi mbir mi amee ci guddi gi xeex bu metti am ci ci diggante ñi nga xamante ne ñoo ñu dëkk Fass ak waa ak aada Fass parce que gis nañ ni këram lañ dem dagg drapeau yeeg mbir moomu affaire boobu naka la demee parce que dañuy wax ni mbirum ñaareel ba la ñii di non non affaire Jakarta la est-ce que mën nga ñu si indil lu leer. non du mbirum ñaareel de. waaw ah. affaire ak Jakarta la. am nga jox jakarta ku jël jakarta yi am yu mu jaay am yu mu yóbbu parcelle comprendre nga looloo waral coow li nag looloo waral xuloo beeg dagg drapeau beeg loolu moo ko waral mais du leneen loolu kese la ak nit ñi tamit lu ñu dencoon seen xol loolu moo leen luñ ak lu ñu dencoon seen xol tamit loolu lañ doon génne waale état mhm. yi comprendre mhm. loolu moo waral loolu ay dem soirée beeg dem soirée mhm. ah di def lu ko neex ñëpp gaa yëpp toog jàpp seen ñàmbur rek am lu ñu denc seen xol. loolu nag moo waral nag ñu génnee ko indi indi ko Bougan boo xamante ne nii attanu ko Bougan bi après mu jéggi da ko ëpp doole. parce que Serigne Bamba. Bougan bi moom ëpp na ko doole. Bougan bi fan la la fekkoon fii ci koñ bi. parce que alxuraanul karim dama doon nalaw. <laughs> billaay laa doon def ba ma yeewoo dugg ci tiktok bi nii gis affaire yi nii comprendre ma xool ma ànd seeg booy tal si kawam man tamit am média bu ñëw seet si moom ma dal si tal si kawam wax lu muy dégg barke alxuraanul karim mhm. billaay wallaay tàllaay mhm. euh, euh, maintenant yow bi nga dalee ci kawam après déggante waan ngeen wala déggante woon. waaw déggante nañu déggante nañu téléphone. Ah. léegi léegi déggante nañu téléphone woo na ma téléphone. lan waxtaanee. dafa ne dafa juum juum na. ma ne ko waa ci lan dafa juum ci lu mu def. ci lan la def ci jabar ji wala ci jakartaay. non non waxuma la si jabar ji de man sama yoon nekkul si jabar ji de saa waay sama yoon nekkul si si jakartaay la juum. est-ce que comprendre bu mu jubee si jakartaayu nag gis xam na moom yor na ci xool téléphone am xam naa gis dugg ci TikTok bi moom rek nga fay gis aada faas aada faas woo ma téléphone ne ma damaa juum ma ko soo juumee nag da ngay waxtaan ak staff bi waxtaan ak ultra bi comprendre nga nga woote réunion nga waxtaan ak ñoom ñu jégal la léegi nag suñ la jégalee après nag nga jégalu waa Ndakaaru nooy jégale waa Ndakaaru mm. nga woo média yi woo doomu Bécaye bi nga woo ñu ñëw nga jégalu waa Ndakaaru instant bi loolu moo fi sës mhm. amul leneen leneen lu la wax nag sa affaire la mu ni la waaw d'accord na ci loolu géej moom jamono ji fan la nekk non man moom xaw ma fa la nekk rek xaw ma nag fan la nekk moom dëgg na yàlla mais saa yi nag am na loo xam ne wuy ma mais saa yi eh, saa yi xam nga fa aada saa yi déglu man doo ma jéem a waaxu tamit nag man la laay bu aada faas bu ma waaxul mais xamoo laay yow laay xamoo fan la aada faas déggal ma la bul a waxtaan rek état incompétent dégg nga laay xamoo aada man mënu ma wax fii la nekk mais c'est grave ça ah ah mais loolu tamit yéen seen mbër xamoo leen fi muy dugg xamoo leen fi muy mais man mënu la wax fii la nekk aada mënu la wax mais yow jakarta yooyu ñu taxaw ci c'était pour booy dëkk faas parce que dégg naa dafa woon seen carte d'identité yeeg mbir affaire yooyu euh, pour booy yi dëkk wala pour aada faas la woon pour boppam pour booy dëkk Fass la pour booy pour waa Fass la. ba ci waa town beeg yi ñëpp. ñëpp waaw lan moo tax mu yóbbu ko parcelle. waaw mais loolu xëy na xëy na jabar ji tamit ah xaw ma jabar ji lan la ko defaral bu mu teral ko bu yóbbu ko parcelle ma loolu jaaxal na ma ko waa. jabar ji parcelle la dëkk. parcelle la dëkk kon ko ñu jabar ji la yóbbu jakartaay. waaw ko ñu jabar ji la yóbbu jakartaay. barki Serigne Bamba mais ñun ay doomu Fass la ñu rek ñun du ñu mos a cub suñu drapeau. Ah, mais mais yow yow yaa ni yow yaay laay bu aada faas kon yow mën nañ jàpp ni aada dafa cub drapeau parce que dafa bàyyi faas dem parcelle. daa cub drapeau am saay ragal fee day a wër rek lu may lu may lu may wax ni ragalu ma ko voilà. mais loolu loolu nan la ko waa waa habitant Fass yi naka la ko waa habitant Fass yi dundee euh, parce que Fass yéen lu ne defal ngeen ko aada taxawal ngeen ko nu ne donc bu jekkoo mbir yi pour man dafa war a mën a toog Fass lan moo jar par exemple mu bàyyi Fass dem parcelle. looloo ñeem looloo yéem ñeem ñëpp nag. Mhm. ñun loolu daf ñu jaaxal. le geste boobu noonu def jaaxal nañu trop. parce mhm. que alxuraanu kariim dañu jël benn jegeñaaleem ñu ni aada xale bi da ko jekku mystiquement est-ce que yow bokk nga ci ñuy partagé avis boobu. waaw rumeur boobu tamit dal na ma am na ko ñuy wax sàkket. Mhm. wax jooju wax na ma ko quoi. waaw est gëm nga loolu. ah aada lu muy def nii naa mel ne àndul ak sagom nag de dëgg neex yàlla. moom nii la meloon aada melul mosul nii. aada musul mel nii billaay wallaay musul mel nii barki sëriñ Bamba affaire bi jaaxal nañu trop barki alxuraan billaahi waaw loolu noonu tamit moom bëgg-bëggam la quoi mais loolu sportif moom dëgg na yàlla du def loolu ay takk ñaari jabar moom du yoon quoi mhm. du yoon roi des arènes non lii moom jarul roi de arènes laay baal. waaw mais eh, parce que parce que coach am bi coach am bi nee na. aada du entraîné te da boole neex day suus. la mooy suus la mooy loolu. xamoo luy suus. nga ni koy paas nga yow. mais eh, saa man xaw ma xanaa bi la aada wooyee daf la menacé. parce que yow seetaan naa sa sortie bi mais yow sortie bi nga. mais yow saa nga bëgg jaxase ak rek nga may naan aada woo ma mënaate. mais ni nga aada mënaate aada pour. mais ni nga waxee woon sa ma aada pour loolu jaaxal na ma parce que nii rek saa yi. yow suus sa diggante ak xaw ma luy suus ma luy suus mais nga bëgg ah? ma jaxase ak àdduna yi ma jaxase ak Ndakaaru suus yow saa yi yow ma bëgg jaxase xanaa saa yi day ruux de eh, barki borom daaru si góor man du ma mos a ruux lu tax ngay ruux kon yow lan man xaw ma lii suus aada man xaw ma man saay man xaw ma lii suus barki Sëriñ Bamba ma lii suus billaay wallaay day daaju daaju ay ay wax la nii rek ay daaj la mooy daaj daaj xam na laa xam jël marto ne keng keng man loolu laa xam loolooy daaj saay woo bi woowu milieu la waru ko takk woo bi woowu milieu ko takk uh-huh. man loolu la ma ciy wax mais mais barki am na doom te ku am a doom dégg naa ci liiwu Ibrahima yooyu la nekk. awkat la awkat la. non. barki Bamba. mais loolu warul tax tamit ngeen di dénigrer xale bi xale bi euh, gis na euh, gis na gis na aada bëgg ko aada gis ko bëgg ko mu tax ko warul tax yéen ngeen di dénigrer booy bi naan ay booy milieu la ay am na doom ak affaire yooyu. eh saa yi woo bi woo milieu la affaire de milieu loolu lay tund woo bi loolu lay tund ñun gëmuñu yooyu noonu saa yi. Hmm, lan ngeen gëm. ñun xam na lañu gëm. ku toog ci pooju ndayam. Hmm. aada ñun loolu la ñu gëm gëmuñu ay woo milieu. barki sëriñ mais gars yi nee na booy faas la mais du nante loolu da nga koy d'accord. aada nante la. mais nante dina def lii. mais nante day juum saa yi nante su juumee rek day daanu. nante su nante du juum. Uh-huh. nante du juum aada baa ngaaga la. ngaaga bu mag la nga nante doo ñu may suñu jàmm yow. la doo wax am yow moo gën. yow gaan yow bul ma jéem a jaxase la ak aara laay bëgg aara faas mais da ngay wax lu am moo gën. yow lan moo la metti réellement ci booy bi. kay booy bi kay lu ñu metti moom bëri na yooyu mënuñu mënuñu mënuñu wax daal mais daal lu ñu metti moom daal bëri na trop barke yaa boobi un amul yëg-yëg si nit boobi da lay romb mel ni ku la xamul wala day xaar yow nga koy nuyu di jéem a dund dund succès Fass mënoo fi ñoo di succès ñun fii lañ dëkk ci nature yaa ngi fil Ada Fass noonu la mos a mel boo waxee ñeene complexe la wala genre affaire bi du yooyu ñoo ko gën a complexe téeméeri junni yoon mais dañ lay romb naan dañuy jéem a assoné wala genre ñu la moroon ñu koy topp mooy drapeau bu mu sol mais Ada Fass ñun di jëntiwuñu ko xooluñu ko sax ñun ñun sama premier combat yóbbu naa fi année jàmbur kon du qualifié ñun naan ma fi li njaa laaj moom kanamam ñu yàq année jàmbur Ada Fass jóg ko ci dara te tooguma fenn di ko fa wax xam nga wala ndax lan ñu dañ kaa bëgg moo tax yooyu noonu lu des saa demee stade am am ay business yu ñuy dal ci benn nit comme te na yëgu la bu bu yàggee yoon da ngay toog nga ko yoon baa ngi noonu. mais nee nañ Ada Fass kenn du xam fu muy fanaan kenn du xam lu muy def entraînement yi respecté wu ko loolu yéen ñu dëkk ak moom est-ce que dëgg la. saay bis nga tey Ada Fass dina respecté entraînement yi. ah kon respecté ko woon déglu ma dina dina respecté entraînement yi dina xam fu muy fanaan instant bi nii dañoo pare instant bi nii bañu ci dara Ada day ku nekk jël yoonam. barki Seydina moo xam parce que dañuy sonn si moom quoi. billaay wallaay. mais na ngeen ko bàyyi définitivement wala da ngeen a mer. non mer. nañ moom mais état yi man moom commencé naa jël sama yoonu bopp nag <laughs> quoi. Ah. xaw ma nag ba si kanam man moom commencé naa jël sama yoonu bopp waaw. xaw ma du ma topp nit koo xam te ne moom yëgul nit ñi quoi. ma dëgg fa ne yàlla moom sinon ma topp ko samay waajur sama moo gën mais est-ce que est-ce que nag waxtaan jotul ngeen recadré ko parce que aada comme ni nga wax roi des arènes ngeen bëgg dafa tax am na wàll ci làmb ji sincèrement ndax bu jugee xale yi topp ko ñëpp a ko bëgg bu touché mu neex bu bëree mu neex mais est-ce que jotul tamit mu defaraat toogaayam defaraat. loolu par la force la. Ah, nan lay nekkee par la force yow yaa ngi nii mënoo xamoo fu aada nekk. waaw waaw dëgg la waaw dëgg la xaw ma fu mu nekk. waaw yow xamoo fu aada nekk. bëgg xaw ma fu mu nekk rek. saay aada fu mu nekk xaw ma ko. mais loolu par la force la. Ah. loolu par la force doole mbaam la munu si dara ñun ñoo koy diriger jamono jii nii aada ñun ñoo koy wax defal lii wu def ko xam nga lan moo ma jaaxal yow xanaa booy diriger nii da ngay xam fu mu nekk waaw déggoo lu ma la wax xanaa dinañ dinañ def réunion ah da nga koy bàyyi mu mu mu kii mu loolu war def réunion booy soog di marié li ngay def mun lindemeel ba pare instant bi nii loolu dañuy réunion réunion bi da nga koy def ba pare sunu suñu réunion ba pare aada ah, ñu ñoo koy teg si ak si neexoon lii ak lii ngay def. munoo ko nga jël sa yoonu bopp munoo ko nga bàyyi lamb ku nekk jël yoonu boppam. parce que ñun dañoo sonn. gars yi nee aada amagul terrain sax bay am kër. waaw loolu dëgg la amagul terrain bay am kër sax. Mhm. naan da ngay takk ñaari jabar. Mhm. en tant que sportif. Mhm. benn jabar bi sax ñoo ngi jëm jéem a lam-laame mais jéem benn jabar ji baax na ngay takkaat beneen jabar. mais aaw bi est-ce que du mer dem. aaw bi aaw bi champion la. Hmm. yaay Fall la Baye Fall yaay Fall original la parki baam Bamba. aada moo ma boole aawam. ndeysaan jox ma numéro mm-hmm. may déggante ak moom. ndeysaan mais yaay Fall la. Mm-hmm. billaay wallaay tallaay léegi boolewul ak ñaareel da koy léegi boolewul ak ñaareel bi. kan aada man su ma boolee ñaareel bi sax man baax na man ñaar man moo man moo milieu nii man bareewu ma si quoi. saay man gaw man yooyu noonu man nekkuma si re man du ma daw laaku re. mais ma nekk fi di wiiri wiiri léegi. mais bi nga dégganteeg aw bi nouvelle bi lan la ko dundee. ba ma dégganteeg aw bi aw bi dafa ree. bi dafa ree mu ne dax dafa bett. waaw après mun la lan. mais foofu rek laa mun a yem quoi. ah mais conseil woo loolu bi conseil nee naa ko jigéen nga wii jigéen rek gëmal sa bopp rek loolu kese laa ko wax ah. amul leneen. moom amul déception ci aada. non man loolu xaw ma ci dara rek loolu laa dégganteeg moom ceex na saay hmm. saay man doom faat la dara du xew. billaay wallaay. est que jàppoo ni est que jàppoo ni euh, mook euh, booy bi euh, booy bi ngeen di tuddee doomu booy milieu affaire yooyu est-ce que jàppoo ni lu éphémère lay doon rek vite fait affaire bi day jeex mu dellu ci leneen. ah man nag xaw ma nag moom lu nekk si xolam de man moom dëgg na yàlla xaw ma lu nekk. dafa jongo ma de. xale bi moo jongo ma. ah gisoo ko xanaa ma ngi tukkal àddina bi ak tiktok bi gisoo xale bi. saay man woo milieu du ma ci sawar si wax quoi wax ma ci Ada Fass. <laughs> sa comb naka ngeen koy waajee. waaw ñoo ngay waaj ñoo ngay waaj moom. ci naka mais jàppaguñu jàppaguñu dat. Ah. dañ ci dinañ ci wax ak Ada Fass si bu wax si lii bi ni nga xamante bi wax ak éditeur bi réunion am ñu réunion réunion bu mat sëkk. Mm-hmm. Ada ñu wax ko lu muy dégg. instant mm-hmm. mm-hmm. parce que instant yi moo jëm ci combat moom ak Zos. Zos dafa mën a këpp yàlwaat man Ada Fass joxuma ko favori de Zos laa jox favori Arafat képp ku muy ma ko jox favori. d'accord mais euh, compte TikTok yow yaa ko message yi critique yeeg yooyu yaa ngi koy lire bu baax. ay maa ngi lire lépp mais du ma ah. ci tontu kenn. Ah, ma am aw ma jotul naan maa ngi tontu nit man lu nekk sama kanam laay xool lu ma nekk lu nekk sama ginnaaw. peut-être mm, jàppale woo aada de mais laay. yow ay eh, euh, saa ay eh, bàyyi li nga nga naan jàppale woo aada yow gars ay eh, kii a saa ay bàyyi li ngay a teg damay naan aada boo ko bëggee jàppale mais yow aada kon man waxu man man waxuma dëgg yow xanaa yow gisoo ab ah. xaaral ma woon soo moo ma jaaxal li tax nga reculer moo ma jaaxal non non reculer ma ah. da ngay pour booy ñëwaat jeex na tàq mais wol ñu aada wol ñu aada ñu dina la booy dañoo mer booy dañoo mer eh wol ma xool ndax dina la jël saay man doo ma jéem a jaxase àdduna nga mel ay wol ma aada ma xool ndax dina jël yow sa yi nga yow mais kool aada rek saay man maa gën a pare fop barki borom daaru sikóori <laughs> billaahi kii mooy aada. ngay naan ay mooy aada xool ne nañu jël. billaahi. jërëjëf. waaw mun na mun na nekk dafa jàpp tamit rek ah yooyu yëpp mun na nekk saay te ko moom moom moo téléphone xëy na daa jàpp rek loolu kese la non du ma incité xam naa day sama appel dina ma woo téléphone saay wala laay laay <laughs> xanaa doo xool doo xool non man man xaw ma loolu noonu de gem bi moom Ah, ay doo xool moom foofu ngeen daw laaxu léegi daw laaxu lan ah, saa déggoo lu ma la du ñu cub suñu drapeau déggoo lu ma la wax du ñu cub suñu drapeau ay doomu toj oto Zarko moom moom bu fekkee moom nit la waru fi sax teg tànkam yow yaa ngi bërek aada faas ah génne sa benn loxo di ñu def fokk yow Zarko lii nga ñu def ba pare nga bëgg ñëw fii nii Zarko police policier ñoo ñoo gaaw a ñëw rek mais barki borom daaru si góor kon du génn du génn faas saay saa yi ñun ay do ay eh, saa yi ñun ay doom loolu suñu yoon nekku ci na dund ak moom loolu moo xam. mais métti ngeen de. ayut booy faas lañu dëkk faas du kirim mosuñu def kirim ñun ay booy faas lañu saa yi. sëriñ tos dara du xew. gémmi <laughs> ñoo ko moom. dara dina xew ndax aada fi mu ne nii yëngal dara du xew. bilaay wallaay tàllaay. ndeysaan dégg li gars yi di wax yaa ngi dégg dañoo mer yaa ngi dégg li gars yi eh, lañ koy wax.